di leen sant ci seen teewaay di wax rek ne Sénégal dafay dund ay jafe-jafe depuis bi nga xamee ne président Macky Sall wax na ne du dem ci troisième mandat am nañu njort sax ne est-ce que nekkut di fayonte ak askan wi ndax li ñu ko puus xoñoñal ko sës ko ci miiru wis bi ba moom Macky Sall dellu ginnaaw ci projet boobu mu amoon di projet def troisième mandat waaye li am solo mooy li Sénégalais yi di dund nii yàgg na mësuñu ko dund sax mënees naa wax ci régime mu Macky Sall musiba yi luubal yi ak naka sudut noonu daa gën a yokk waaye nag ñu dem ba dóor doom làq doom doon loo xam ne dañu ko utiliser ci gouvernement bu président Macky Sall daanaka mën nañoo wax ne mode de gouvernance juróom benn weer dong moo fi desee président Macky Sall waaye suñu xel tey na ci ban Sénégal la ñuy am fii ak juróom benn weer ndax nit ñi sonn nañu nit ñi jaaxle nañu nit ñi ragal nañu waaye nit ñi lott nañu jafe-jafe yooyu nga xam ne ñu ngi koy bàyyi xel bi ci njëkk mooy rëbb gi ñuy rëbb opposition bi di leen rëbb utiliser gendarmerie ak police waaye yegg ba ci di jël ay nit di leen cible ñu gis ci loolu ne ñi ànd ak président Ousmane Sonko ñu ngi leen di rëbb rëbb goo xam ne jéggi na dayo te loolu ba ñu ko gëjee gis daanaka ci jamono ay maam la ca ginnaaw loolu nag tey ji am na junniy doomi aadama ak juróom-benn fukk ak benn mille cent soixante et une personnes yoo xam ne mille soixante et une merci yoo xam ne dugal nañu leen ci kaso loolu muy guléet ci senegal ki ci gën a dee nag di Ousmane Sonko dugal nañ ko kaso partem tas nañ ko mat na fukki fan ak juróom-ñett tey jii ku ne xam na ne dafa nekk ci xiifal grève de la faim parce que jàpp na ne li ñu ko teg injustice dem na ba moom dundam Ousmane Sonko nekk na ci xottu gerte li ñuy wax pronostic vital engage ba tax ñu ngi ñaan président makisal mu bàyyi Ousmane Sonko ci kaso bi mu ko tëj bi yoon nag ñu koy ñaan ngir yàlla ci njëkk parce que tout simplement bu ñu jëllalee wàlli politik dunduk Ousmane Sonko bu ñu sukkandikoo ci kàddu yi jóge ci ay avocat dundam tey jii cate na lool ñu yaakaar ne ci sama conception man boo nekkee président de la république da ngay yaatu dën boo nekkee président de la république di nga dégg la neexul sa njaboot dina dal sa kaw waaye da nga am obligation yow président de la république pour njaboote ñëpp pour protéger ñëpp nit mun naa bokk ci njaboot gi def na ko sudut noonu waaye yow président de la république ci sa mbaax war nga ko mun a delloosi tegaat ko ci rang yi bu fekkee ne nag dem nañu ba dundam nar a des ci situation bi kon moo tax ñu dellu encore une fois di tàllal loxo président Macky Sall di ko ñaan ngir mu bàyyi président Ousmane Sonko ndax dundam fi mu toll nii mu ngi ci xottu gert politique nag bu ñu demee ba mu weesu jëflante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 teggi loxo Ousmane Sonko parce que xam nañu ne sa doole sa influence sa mën-mën mën na sauver dundu Ousmane Sonko et bir na ma ne du ngeen ay noon ay adversaire dong ngeen ci wàllu politique bi ci desit li ñu ñaan ci Ousmane Sonko ñu ngi koy ñaan ci ñeneen ñoo xam ne caabi da leen a féete ginnaaw bari nañu junni ak juróom fukk lañu ak benn waaye dañu ci lim ñenn ñi gën a siiw rek teewut ne ñi ci ginnaaw it fàttewuñu leen professeur buuna bu lycée bu gasan Cheikh Bara Ndiaye Bassirou Diomaye Ami Dia Fadilou Keita Jamil Sané Kaba Diakité Pape Abdoulaye Touré nga xam ne lott na jamono ji Hannibal Djim professeur Cheikh Oumar Diagne Karim Xurum Xaq Nit Dof oustaz Assane Seck mi nga xam ne ci sama njaboot la bokk parce que ci groupe bi nga xamee ne dafa bokk ci holding bi ma jiite muy Boygu Corporation moom oustaz Assane Seck ci Sen TV la nekk ñu ngi koy ñaan président mu bàyyi ñooñu ñëpp parce que ku ci nekk lañu ko fa tëjee mooy xalaatam gi mu wax ci ni ñu war a defaree réew mi te li ma biir mooy ñooñu ñëpp ku ci nekk yéeneem du lenn lu mooy Sénégal baax kon nag président comme yow yaa féete yow la suñu borom jox lenge yi ñu ngi lay ñaan nga teggi sa tànk teggi sa loxo ci dossier yooyu noone it lañu biri ni ñi ci des ñépp bu ñu accélérer procédure yi du kenn ci ñoom ku ci justice sénégalaise di jàpp pourquoi parce que biir nañu ne li leen procureur de la république toppe mooy waxi ndax sa xandang ya mu toppe woon Juan Branco te mujjut fet kon ñu ngi sàkku moom président ni ko yàlla def ba teg ci moom sas wi mu teg ci moom mu muñe ko li ko ñun jaam yu ndaw yiy def parce que nag loolu mooy cër bi ko suñu borom jox lu jëm ci wàllu dund gi ku ne xam na ne dund gi metti na lool ku ne xam na ne réew mi it metti na lool donte diggoon nañ ñu fi ne dina nañu wàññi njëg yi waaye dafa mel ni saafara ju jur jàngoroon tey jii la waalo gën a ay góorgóorlu yi tey lañu gën a sonn ndax gis nañu ne njëg yi yokku na rawatina li ñuy jëfandikoo bis bu nekk yegg ba ci sax njëgul loyer bi ba tey jii gouvernement bii fi nekk seen télé tax na mënuñu régler problème mu bés loyer boobu nga xam ne promettroon nañ ko Sénégalais yi. tey jii jigéen ñi ñoo gën a sonn parce que loo leen jox ngir ñu dem marché dana nu toltolaan dolli ci ku nekk ci yéen xam na ne kilo soble dem na tey ba ci 1200 ba ci mille cinq 1500 diggante fourchette boobu. benn doomu soble démb am na ku ma wax ne dañ ko ko jaay ñeent fukk 200 francs xam nga kon loolu metti na buñ ko waxee nag xel yi mun a tey parce que ci Sénégal li ñuy bay ci soble at mu nekk toll na ci quatre cent mille tonnes ñeenti téeméeri junniy tonni soble la ñuy bay ci suñu jàmbaar yi nga xam ne ñooy bay soble moonte de li Sénégal di jëfandikoo ci wàllu soble weesuwul trois cent mille tonnes ñetti téeméeri junniy tonnes kon borom bopp yu baax yi bu ngeen calculer di ngeen gis ne am na cent mille tonnes yoo xam ne différence kon waruñu woon di dem di jëggaani soble di importer di indi mais bu ñu yeggee ci di importer soble c'est parce que li ëpp ci li ñuy bay ci soble bi dafay nëb ñu gas ba mu xóot daal di koy suul ak mettitu xol loolu la baykat yi di dund rawatina ñi nekk dans la zone des Niayes et pourtant ni ma ko waxee woon pombiteer surgelé am na kon kay soble surgelé war nañ ko mën a def ñun fii war nañoo jéggi loolu parce que fii ci jam ñaajo am na fi entrepôt yoo xam ne dañu ko def ci jam ñaajo ngir denc soble bi nooy denc soble jam ñaajo te ñu koy bayee dans sur la route des Niayes ñu koy bayee dans la zone des Niayes kon cuune ak tële waneeti nañu ko ci wàllu woowu waaye yemu fa dañu doon wax ne ceeb mën nañu góor góorlu ba dootuñu wuti ceeb bitim réew mooy autosuffisance en riz xool leen chiffres yi tey jii dans la vallée du fleuve Sénégal nit ñi seen ceeb mu ngi yàqu ay gunóor a ngi koy song ceeb bi mu ngi nëpp dégg ngeen ko ci information yi moonte dañu waxoon ne ci sabu ci diir bu gàtt danañ am autosuffisance 2013 bu ngeen gëstoo yéen journalistes yi di ngeen gis ne on était aux alentours de six cent quarante mille tonnes yu ñu doon importé jëli ceeb bitim réew indi Sénégal 2022 bu ngeen gëstoo di ngeen gis ne importé nañu lu ëpp un million de tonnes ci ceeb dañoo auto suffisant wala dañoo dépendant je crois que ku nekk ci yéen am na réponse mais loolu grawul dañoo yegg ci wax ñu ne ñoom produire nañu ci Sénégal un million deux cent mille jàpp trois cent mille tonnes ci ceeb padi waaw ku doon importer six cent quarante mille wala un million de tonnes xanaa boo produire un million trois cent mille tonnes xanaa kon sa jaan war naa wàcc waaye yaakaar naa ne tey jii la sénégalais yi gën a yittewoo ceeb bi ñuy importer ci réew yi nga xam ne moo di Inde Pakistan Chine ak feneen kon muy wane rek tële goo xam ne suñu gouvernement yi fi nekk ñu ngi ko tële ci li nit ñi soxla ngir dund mu di ceeb mu di dëwliñ ak suukar ci wàllu mbay ba tey xam ngeen ne ñu ngi ci mbay mi waaye baykat yi am nañu njàqare dale ko ci Bawol jàpp Saalum Kajoor jàpp Njàmbur dem ba ñombaato fu ci nekk tey jii seen njàqare tey la gën a wulee ñaay donte waxoon nañu ne am na cent milliards yu ñu teg ci taabal bi ngir taxawu baykat yi yegg nañu ba wax ne sax dañuy def mécanisation tey jii la nit ñi gën a sonn parce que bu fekkee ne danga am fas fas wi amoo ngooñ bu baax boo ko jox dana lott lool kon am na ci liggéey boo xam ne moom fas wi du ko mate tey jii lañu yegg ci di joxe semence mooy jiw nañu koy defee dafa wute ci gox yu nekk am na gox yoo xam ne carré lañu leen di natte am na gox yoo xam ne par bopp nit ku nekk lañu lay jox yegg nañu ba ci joxe bopp ñeenti kilo gerte ak liibar cinq cent grammes mooy liibar liibaru engrais pour nit ku nekk waaye fawuñu nangu it ne am na joyenti akub ngëneel goo xam ne dugg na ci mbay mi ren ji jëm ci wàllu engrais donte ci wàllu motorisation mécanisation baykat yi gisuñu waaye bari na ci gox yu fasantiku yoo xam ne engrais bi am na ci ngëneel goo xam ne ministère de l'agriculture def na ko ci lu ci mel ni saagu juróom fukk kilo ci engrais bi jëm ci gerte gi ñu ngi koy jaayee huit mille francs ci yenn zone yi noonu la ko état bi joxe engrais bi jëm ci mboq mi ñaari junni ak ñeenti téeméer douze mille bi jëm ci dugub bi ñaari junni dix mille urée bi moom dana dem ba ci ñaari junni ak juróomi téeméer waaye nag teewul tey jii la baykat yi gën a amul njàqare ci nawetu ren bi parce que jàpp nañu ne dañu leen a bàyyi ginnaaw boolewuñu leen ci priorité yi jafe-jafe yooyu yëpp nga xam ne nag sénégalais yi ñu ngi koy dund mooy li ma wax sànq nga la waay président Macky Sall bul jël yat bi di ko dóore askan wi parce que pousse nañu la ba ca miiru wis bi ngir nga dellu ginnaaw ci wàllu troisième mandat defuñu lu dul pousse la ngir nga jëfe li constitution bu Sénégal namm ci wàllu politique juróom-benn weer yi nga xam ne moom moo des ci mandat sàll ci la ñu gis barsa wala Barsaq wulee ñaay daal di recommencer waat moo tax ñoom ñu war a xoolaat seen bopp parce que buñ la joxee quarante quatre mille milliards pendant douze ans nga dem bay jeexal nit ñi takk seen dëbës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 wax naa ko dama koy waxaat xale yi soxlawuñu ku leen yedd ku leen yërëm lañu soxla xale yi li ñu soxla mooy ku leen tegal environnement boo xam ne dinañu mën a demal seen bopp soxlawuñu ku leen xol soxlawuñu ku leen jox xaalis parce que ay nit a ngi fii financé nañu leen te tey jii mënaluñu dara seen bopp lañu leen financé woon xaalis bi naax saay na waaye bu ñu jëlee décision yi war ni ñu ko waxee ci biir document bi léegi lu ci mel ni fexe ba dëkki kaw yi ñu bàyyi leen xel politique de jeunesse yi ñuy def Sénégal yépp dañu koy jagleel ñi jàng ñi ak borom diplôme alors que ñi jàngul ñi jaar daara ak ñi nga xam ne dañuy taaba taaba ñooñu ñoo ëpp junni yoon ñi nga xam ne dañu jaar ci banwu l'école am diplôme kon politique de jeunesse yooyu suñu koy def dañ ko war a yaatal moo tax ñun ñu ne ngir moyu gone yi jóge dëkki kaw jànqe suuf wala euh, ndungu siin may wax ak démb suma benn xarit ba tuddal ko ndungu siin mu ne ma ndungu siin mooy kaso ma ne ko déedéet ndungu siin dëkk la ma ne ko ndungu siin dëkk la ndungu siin mu ngi à 3 kilomètres de Makka Koulibantang mais mu ngi à cinq kilomètres de Paskoto pas non Paskoto waxuma Paoskoto Paskoto Paskoto moo nekk Kumpentum Paoskoto moo nekk ñooro donc ñaari dëkk la bokk donc Ndungu Siin dëkk la ñooñi it da ngay gis ay gone yu jóge foofu ñëw ndakaaru yor marchandise bu matul ñeenti téeméer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 ak daanaka cent quinze communes villes ñu jël commune rurales yi privilégié leen fexe ba baykat yi nekk ci commune rurale yooyu ñu organiser leen en coopérative moyens yi ñu wax ne dégagé nañ ko ñu fexe ba coopérative yooyu jot ci fu ci nekk ñu organiser leen fexe ba am semence yoo xam ne semence yu baax la waxuma gerte pëpp goo xam ne bu ñu ko joxee nit ñi bu ñu ko bu ñu ko xoolee sax yëf bi daal di nax saay ñu fexe am matériel bu baax waaye mbay dong du mooy joxe xaalis boo bayee bu nit ki bayee ba noppi da ngay fexe maîtriser la chaine ngir mun a transformer li mu bay mooy li may wax tout le temps kilo gerte baykat bi da koy jaayee deux cent cinquante mais boo demee ci supérette yi ci ndakaaru booy jënd sachet gerte cent grammes cinq cent wala six cent francs lañ la koy jaayee luy différence bi transformation kon transformation mooy joxe xaalis mu ngi woon ci biir PSE ci phase une bi wax nañ ko mooy transformation euh, structurelle mais jëfewuñ ko dañuy wax rek bàyyi ci këyit yi li leen intéressé mooy lu ñu def ci seen poche démb maa ngi wax ak euh, am na ku may waxal suma bureau mu ne ma inondation yi ma ne ko inondation yi du fi mës a jóg parce que système bi mooy dundee inondation chaque année ci la ñuy dóor pour mun a am lu ñu def ci seen poche Sénégal rek ngay gis fonctionnaire di nekk milliardaire Sénégal rek ngay gis ab politicien nekk milliardaire bu ñu yeggee ci situation yooyu ci réew réew moomu day toskare réew moomu ci pauvreté dong lay nekk moo tax nag ñoom ñu war a comprendre ne jeunes yi jël nañu seen responsabilité nangootuñu kenn di jël réew mi di ko def sa moomeelu bopp ñi nga gis ñuy tëb di dal yépp lu ci bari ci ñoom naan candidat lañu jubluwuñ ci lenn lu dul wut fu ñu làqatu rek ngir li ñu def ci njombi ci réew mi dañuy continuer di def politique parce que xam nañ ne li ñu duppee anti système ñun ñi nga xam ne lépp jaar ci yoon la ñu soxla bu ñu ñëwee ñoom ñëpp dinañ rëq seen dikk comme nag mag moo xam ne xam nga li lay yoot da ngay moyu li lay yoot moo tax je disais que quelqu'un comme Ousmane Sonko il est en prison c'est pas Macky Sall c'est pas la volonté de Macky Sall c'est le désir du système c'est le système qui l'oblige aujourd'hui à mettre en prison et à euh, nu ngi koy waxeeti regarder traquer tous ces gens qui ont cet esprit et cette philosophie antisystème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 yéen ñii bari na ci ñoo xam ne da ngay dem ba bac quatorze ans nga toog ko ci banc boo amee bac wax ma loo mën mënoo dara bind ak liir nga mën et ça c'est le système qui est à la base pourquoi parce que bëgg nañu yéen fi ngeen nekk ngeen nekk toujours ci dépendance nit bu fekkee ne dafa war a jàng quatorze ans def cycle am bac jàngaat cinq ans muy ñaata dix-neuf ans boole ci sept ans wala six ya nga duggee école daanaka màggat la li ëpp ci sa dund yaa ngi ko passé ci ay banc alors que yeneen réew yi fexe nañu ñoom ba seen système éducatif ñu sopparñi ko boo demee ba classe su troisième mooy fi ngay defee BFM commencé nga di def formation professionnelle et loolu jàpp nañu ne bokk na ci solution yi nga xam ne war nañu ko dawal auto emploi xirtal nit ñi ngir ñu demal seen bopp bari na ci yéen ñu jàng ba noppi boo amee diplôme maire bi danaan amagul liggéey de parce que ci subconscient wu suñuy waajur ñun nit dalaa war a liggéeyloo alors que war nga mun a liggéeyloo sa bopp tey jii bu ma nee Sénégal amul politique d'innovation monte yéen ñi fi nekk di ay site internet bari ngeen ci réew mi ban encadrement la ñu teg pour yéen ban liggéey la état bi def pour que li ngeen nekk mu di niche boo xam ne mun na créer des millions d'emplois dans ce le Sénégal n'a de politique d'innovation ñun amuñu politique d'innovation tey boo gisee ay yango ay Euh, Yassir nga gis Itch mais je donne principalement Yango Yassir seen ay réew Nigéria ak Maroc dañu am politique d'innovation am ay milliards yuñ ciy def gis nga ñoom liggéey nañu ci seen réew ba ñu ngi leen di wax ne dem leen ci bitim réew ngeen dem conquérir ñu ñëw Sénégal di fi def liggéey bu demee noonu de bu dee Copper Express ci logique gu innovation la jooni jooni ci logique gu innovation la wari ci logique gu innovation la mais ñooñu comme réew mi amuñu fi ndey ak baay amuñu fi bàjjan gu leen roganti dañuy fexe nërmel leen le système revient parce que c'est ce système qui ne veut pas que système qui ne veut pas que le sénégalais bii dawal Jakarta mu war a dawal beneen oto boo xam ne moo gën a bakkane parce que dañu bëgg nit ñi nekk dans des logiques de dépendance loolu laay wax tout le temps suñu baykat yi pourquoi baykat yi bariwuñu ci ay millionnaires moonte boo demee ci réew yi ñu dendal baykat yëpp dañoo am alal ñun suñuy baykat dañuy ñaan di tàllal loxo pour ñu jox leen jiw dégg ngeen léegi li ma ci wax di ñaan pour ñu jox leen semence pourquoi parce que système bi nga xam ne moo fi nekk bëggul nit ñi teg bëgguñu nit ñi am kon jàpp nañu ne am na ay mesures yoo xam ne rapidement président war na ko jël donte xam naa ne dama ko koy fàttali rek ndax dama laaw dama koy laawe biir rek parce que comme man dama am yéene ci réew mi jàpp naa ne am na ci loo xam ne daf ko war a def daar daar donte xam naa ne mën naa jéem mais ku tëli 12 ans yaakaaruma ne ci juróom benn weer di nga fi def lu nit ñi di dare seen gémmiñ waaye rek ma koy ñaan moom président Macky Sall ci stabilité dal jàmm gi réew mi soxla moom président Macky Sall nañu ci jàppale. parce que dal googu la ñuy woote moo tax ñu sàkku ci moom ñi ñu tëj ci kaso yi waaye waaye na leen génne parce que Sénégal jàmm la soxla Sénégal dal la soxla li ñu soxla ci njiit. monsieur le président mooy boo meree nga dese xel boo tiitee nga dese fit waaye boo ñàkkee nga gore loolu yépp ku mu nekk ci sa ndodd ñun ñi féete suuf xam nañu ne du xeex mooy regle lépp du xeexit mooy regle réew mi parce que man Bougane li ma gëm mooy xeex amul victoire boo xeexee ak ku la ëpp doole danga dof parce que da ngay xaru parce que biir na leen ne dóor ba sëlam la boo xeexee yow koo ëpp doole amul victoire gàcce la parce que yow xam nga ne kii yaa man mais beneen bi ci gën a garaaw mooy xeex ko tolloo doole parce que boobu wóorul mun na laa dóor ba sëlëm la moom it kon li ñuy sàkku ci président de la république mooy mu yaatu dënn la ko Idrissa Seck xase woon ca Thiès ne ko dilatel sa poitrine kon président da nga lay ñaan nga yaatu dënn ngir jàmm ji ñu bëgg ci réew mi dal ji ñu bëgg ci réew mi booy dem incha allah en avril 2024 nga jox ñu réew mu ne ñum réew mu dal réew mu sedd comme nañu la ko joxe woon parce que nag sénégalais yi ñoo soxla lool lii moo doon lii ma tënkoon ci Euh, document bi